président la république moo jàpp que ne mbas mi dafa laal secteur éducatif de manière générale te formation professionnelle nekk ci biir mu décidé comme ni mu jàppalee yeneen acteurs yi jàppale formation professionnelle école de formation privée yi jàppale leen ci mbas mi jagleel ko juróomi téeméeri million cinq cent millions de francs CFA loolu ñu séddale ko ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn centre de formation privée niñ ko séddalee nag dañ ci def ñetti condition bi ci njëkk mooy école yi nga xam ni am nañu reconnaissance ñoo ñi nga xam ni décret moo leen créer président la république moo jël décret pour créer école privée yooyu ñu jox leen am lu ñu leen jagleel ñu teg école yi nga xam ni am nañ autorisation te ministre en charge de la formation professionnelle def ko ñu teg teg ci ñeneen yi nga xam ne nii am nañ autorisation provisoire pour séddale leen xaalis boobu leneen li nga xam ni am na solo ñu jàpp ko aussi ci séddale bi mooy jël benn enveloppe jagleel ko ñi nga xam ne nii am nañ ay candidats ci examen d'état yi maanaam CAP BP BT BTS ñu jox leen une partie donc loolu nag su ko président defee parce que dafa jàpp ne formation professionnelle lu am solo ci réew mi la bi mu nekkee ci bopp nguur gi ba léegi mi ngi yokk moyens yi nga xam ni ñoo jëm ci formation professionnelle yokk budget bi yokk centre de formation yi wax na sax ne subvention yi nga xam ne moom lañ jox école formation yi dañ ko yokk pour que ñu mën a gën a former xale yi parce que li mu bëgg xale yi nga xam ne ñi ngi génn CM2 wala troisième téeméer boo ci jël fan euh, fanweer yi trente yi ñu yóbbu leen ci formation professionnelle parce que wax naa ko ne li ngeen di def yéen en tant que acteur de formation centre de formation privé fi ngeen nekk di jàngal xale yi su ngeen fa nekkuloon état moo fa a nekk